capitaine Seydina Oumar Touré nekkoon ci gendarmerie nationale te ñu mujjee ko raje moom nag semaine bi ñu door dafa génne woon ay photo ci page Facebook am di xamle ne fan yii daal dafa door di jàngale ci école bu mag bii di IAM te homme politique bii di Moustapha Baba Guirassy moom ko. waaye ni ki tey dafa xëy di xamlewaat ci page Facebook am ni liggéey bu mu doon liggéey foofu dañ koo dakkal. mi ngi xam ne ne sax naka la xëy rek ñi di waa direction école IAM ne ko daal ànd bi ñu doon ànd maanaam contrat bi doxoon suñu diggante ak yow dañ koy dakkal li ko waral nag mooy ay pression yoo xamante ne moom mi le dund na ko loolee nag waral kii di capitaine Seydina Oumar Touré ci biir bataaxal bi ba tey mu ci xamle ne lii daal dafay wane xar kanamu homme politique gu Afrique ndax ni ñuy jiitee war a aar seeni doomi réew defuñu ko ci kaw loolu mi samp ay laaj ani démocratie ak liberté bi nga xamante ne sax moom la citoyen bi war a am mu ne nag dafa jot ñu màkk dafa jot tamit ñu xam ne colonisation jóge na fi ñun ñu ni nen la waaye tamit réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kon tey jii buñ la joxee ab réew nga di ko jiite ñëpp di bàkkee réew mi réew moo xam ne réew mu moom boppam la kon waroo di xeex ñi nga xamante ne say doomi réew lañ li la war mooy di leen taxaw di leen sàmm di leen aar fu ñu mën a bokk ak bépp wàllum politique bu ñu mën a bokk li la war mooy leen aar moom capitaine ture di daanelee boobile bataaxal di ci ne naan li may def sax xam naa mooy damay daal di dellu ca Kolda ga nga xam ne fa laa dëkkoon daal di jël samay nag ak suuf sa nga xam ne am naa ko daal di bay waaye may yaakaar ne nag xam naa sax duñu ñëw nag nangu suuf si ak tamit mala yi nga xamante ne am naa ko wala sax ñu daal di tere asamaan si mu taw waaye nag yàlla baax na Seydina Omar Touré. bataaxal bi bi mu ko jàllalee ba noppi gis nañ réaction ci Facebook bi ku nekk di ci wax ak ni nga ko gisee ñenn ñi jàpp ne jaay doole ju ëpp la kii nga xamante ne moo di taskatu xibaar bii di papp Alé Niang moom dafa dem ba ci biir sax di xamle le li waral tey ji Moustapha Baba Guirassy daal di dàq kii di si Sidina Omar Touré ci benn chronique bu gàtt mi ngi ciy xam ne ne Moustapha Baba Guirassy naka la ko jël rek pression yi di jóge fu nekk ci nguur gi Macky Sall moo ko mënta supporter ba tax na ministre de l'enseignement supérieur ak ñeneen ak ñeneen ne Moustapha Baba Guirassy fala bu da faw nga dàq kii di capitaine Seydina Oumar Touré ci kaw loolu yéex-yéex daal da ciy am sax ñu indil ko fisc bi maanaam ay lempo xaw ko xoñoñal loole moo waral Moustapha Baba Guirassy dem ba xool ba ci biir nag xam ne nag li ko war rek mooy de daal di tàqaliko ak kii di Seydina Omar Touré xibaar baa ngi noonu Seydina Omar Touré jamono ji kon delluwaat na fa mu nekkoon maanaam ñàkk liggéey